asalaamaaleykum wa rahmatullah man la imaam Nguy Thiaw fii ci mosquée Poulaye. waaw imaam euh, tey dafa mel ni ci sa xutba yaa ngi ci yaa ngi ciy dénoncé daal wala yaa ngi naqar naqarlu euh, euh, maanaam député yi ni ñuy doxale ci assemblée di xeex ak yu mel noonu nga jàpp ne ñoom ak ndaw yi daal duñu ay référence waaw waaw parce que boo ne yaa représenté peuple bi. peuple boo xam ne dañoo peuple bu yaru lan peuple bu am teggin lan nga représenté la ba di saagat di xasante kon ñooñu waruñu kenn waru ta roy si ñoom kon ndaw yi nekk seen gannaaw laa yërëm pour ñu dellu gannaaw bañ a roy ci loolu parce que loolu dem na ba law na ci école yi école yi fi mu nekk ne ñu ngi saagante ñu ngi dóor seen i jàngalekat di leen tegal ay pousse pour ñu toog ci pour ñu jàmmale xam nga kooku day bokk kooku day respecté tul jàngalekatam ak yeneen yoo xam ne xew na ci école ci fan yi rek muy yooyu xam ne kenn rafetlu ko ñu ko defee yooyu ndaw yi laa yërëm pour ñu dellu gannaaw xam ne kañ tudde ecole bu nekk kañ ko tudde révélation royukaay la képp ku fay jàngi war ngaa fexe mel na kañu tudde école boobu rawatina Cheikh Anta Diop ak ñeneen ñoo xam ne kooku de ma ko ci cité rek waaye bëggoon na xam-xam respecté woon na xam-xam respecté woon na ñi ko doon jàngal kon ñooñu su tabarakallah képp koo xam ne yaa ngi doon jàng ci ñoom war ngaa roy ci ñooñu waaye roy kat roy koo xam ne kat loolu kenn waru koo roy loolu moom kenn kenn kenn war koo roy kenn kenn war koo roy su ko defee yooyu mooy li nga xam ne moom laa doon fàttali sama bopp di fàttali ne eh, jamono jamono joo xam ne eh, jamono jii nag wax dëgg yàlla ñun ñëpp war na nañoo tiit ndax dara baaxul lépp foo lamba rek mu mitti li ñu feebaru mag loo foo lamb si yaramam mu ne day mitti diine ji kenn xeexatu dini addina dini moom dañ ko teg foofu kaay waaye addina moom bul laal dara loo laal ci addina rek gaa yi kaw waaye diine moom lu la neex wax fii ba ngoon buy ba suba kenn du wax dara diine kenn kenn défendre diine te ñun ñëpp nag ñoo war a défendre diine nag diine yi delloo def ko wàcce pour ñun waaye teguñu ko rek pour ku soxla am ngenti def ko ku ci am ceet waaye ba pare ci loolu pare nga ci loolu kon loolu nañ ci bàyyi xel ko defee loolu rek laan ci doon fàttali julli ji fàttali ne delluwaat dëmb jot na delluwaat dëmb mooy lan jub jubal waaw feebar bi ëpp naa euh, bur ba teen bi ku daanu dee xam nga ko mais bu ca daanu moytul bañ daanu ci teen bi moo gën daanu si teen bi feebar ku nekk xam na ne feebar day day loore comme day lore nag ñu bañ a feebar la nga xam ne moo ñu musal ci ñu baña feebar ñu ñu moytu ko terewul laa liggéey waaye booy dem ci ngaje yi mu ne solal sa nangam nangam ak yooyu ko kay wax dëgg yàlla soon sonalu la li bon mooy toogal te doo dem fen te joxu la nga lekk waaye mën ngaa dem waaye nag jël def lii nan ñu def loolu ba loolu passé ñi nga xam ne ñooy ñekku nañ dem ñekku nañ dem ñëpp dem ñekku ci nañ ñëpp comme loolu lañ xalaat ni moom mooy défendre feebar moo koy jeexal nañ ñëpp na ñëpp ñekku ndax feebar bi jóg fi yàlla na yàlla defal dégg ak topp